2019 yéen ñëpp xam ngeen li tax Karim ñëw Karim dañ ko jatan jatan bi mooy dañ ko extradé génn ko réew mi dugal ko avion yóbbu ko Qatar sans sa volonté pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal bu mu juumalee bu amee ngeen ngeen ngeen ubbi sama xel mais maa ngi soog a gis un homme politique qui est bénéficiaire d'un d'un d'un décret présidentiel pour ñu ñu ñu génn ko kaso décret ba décret bi existé na. existé na évidemment donc ñu génne ko décret de grâce ñu génne ko ñu ne ko doo dem sa kër doo dem seet sa wayjur doo dem sa kër sëriñ doo seen permanence say militant doo jaar fen yow daal da nga dem direct mu nangu ko mais mënu ko bañ parce que la force xam nga l' état c' la force principale xam nga état kenn du xeex ak moom état c' une force boo xamante ni bii lu mu soxla war na ko mën am. kon jàpp nga ni Karim si ñëw non yéen lu muy signé signé c'est-à-dire signé départ bi. Mm-hmm. non c'est une contrainte de l'État. Karim n'a jamais signé quoi que ce soit et je défie ceux-là qui qui subordonnent cela ou qui le murmurent de nous prouver le contraire amul amul fenn. alors donc loolu moo tax mu dem en ensuite bi nga xamante dem nañu ba ñun ñun ñoo déposé woon justement euh, le dossier de sa candidature man mi Assane Ba maa doon ak Oumar Sarr. de mm-hmm. ren man mi maa ko réglé woon. mais sur les neuf pièces yi nga xamante moom la ñu war a fournir pour la candidature à la présidence de la république les huit étaient benn rek lañ ko recalé muy refus bi nga xamante ni bañaloon nañ ko ko pour am la carte d'électeur te ñëpp xam ngeen nii bindu woon na mais l'État a recouru à des à des formes d'un État voyou à des formes d'un État voyou. Mm-hmm. un État voyou encore une fois c'est pas méchant c'est un État qui refuse d'appliquer n'est-ce pas euh, les décisions de justice internationale c'est ça qu'on appelle un état ak ñëpp parce que Karim bi mu demee bitim réew en commençant par la cour de justice de la CEDEAO dafa gagné état du Sénégal mm-hmm. il a eu quatorze décisions rendues en sa faveur contre l'état du Sénégal mm-hmm. ba ci comité des loolu moo moo annihilé n'est-ce pas euh, l'arrêt la décision de de de de la CREI amatul njëriñ mm-hmm. moo tax bi ñu ko yóbboo ñoom Paris alors dañu leen yéen kii ñu reconnaître toog leen fële kii moom sànni par ils ont été déboutés l'État a été débouté. Mhm. bon bref bi nga xamante ni bëgg nañu xool nañu xool xool fu ne pour galgal pour Karim bañ a dem kañ nekk candidat je me rappelle je rappelle en en au passage que Sidiki Kaba nekkoon jamono jooju ministre la justice garde des Sceaux vous en rappelez bien. Mhm. moo jëkk def conférence de presse bi ñu tëjee Karim en 2015 mu ni Karim Wade ne perd pas ses droits civiques et politiques. il peut être candidat mm-hmm. il est éligible mm-hmm. et il avait raison parce que le code pénal dafa dañu wax ni bala ngay déchoir les droits civils et politiques d'un citoyen sénégalais il faut que le juge en fasse référence dans sa décision mm-hmm. loolu amul léegi ñu xool-xool avec ses conseillers juridiques les Ismaïla Madior et autres la ñu ñu ni kon nañu dem au code électoral qui est une loi qui organise l'élection foofu la ñuy tappale indi l'article L57 ñun léegi pour être éligible, éligible il, il faut être candidat il faut être électeur inscrit mm-hmm. or que cette mention n'était pas obligatoire depuis l'indépendance à nos jours foofu la ñu jaar ñun c'est une loi donc c'est la loi qui organise les élections pour la première fois également mu gis en droit on a l'habitude dire que que la loi elle est impersonnelle et d'ordre général. Mm-hmm. pour la première fois mu la loi. qui devient personnelle qui devient personnelle et particulière et personnalisée. Mm-hmm. loolu citoyen sénégalais war nañu ko xam. Mm-hmm. voilà loolu moo xañ Karim mu ñibbisi ban njëriñ ban sens la amoon Karim ñëw jamono jooju te nekkul candidat. amul sens amul sens mu ñëw te nekkul candidat bien sûr.